salaamaaleykum ami internetu xéewal gi TV maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am contentement nag ñëwaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne sopp ngeen ko lool moom moo di découverte découverte nag tàmmoo ngeen ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Baytal wante tey nag moom Sista di xaar moom moo ñëw fii wuuti ki nga xamante ne moom moo di Baytal ci émission bii di découverte découverte tey dafa ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Babs Wane jugee ko fii ba Kër Maba Babs ab salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam di xaar. Babs ginnaaw bu ma la nuyoo nee nañ saxaar bu jubee gaar day cordé kon nag ma bëgg rek nga nuyu ki ñi nga xamante ne moom mooy ci sa fay say fans ak benn son boo xamante ne ñoom moom nga leen di bëggalee. waaw may ziar samay fans yi depuis One Gig Crew ok. ñu rek ngir bégal fans loolu mooy li ñoo ma teg fu kawe kawe ne ma bab ci yaa mën bégal leen nax mooy li gën noonu di ngeen tuxi poon teg sa mosul jàdd yoon def ko bës ay yoon yu yoon fayit guddeeg bëccëg daal di utloo samay noonu mën nañoo imité même jamais égalé style bu ma neex ma dóor même coupé décalé flow bu neex day rimbu naay c'est la bonne ak qualité maa ngi dellu sant yàlla mooy ki ma validé teg ma ci yoon bi assuré bégal fan si noonu nangu yootu def fi jaloore xëy nañ fajar teel a takku yoon bi yàgg assuré job si texte ak sibit xam ñu rab a tatoone damay pëndal daal di yëngal on est toujours aw la loi respect la ñuy ñun wan ngi croiser la loi merci Babs nuyo bi amna solo li nga nuyo neexna trop lolou fans yi ñom ñoo di ko ñoom ñoo ko moom Babs wan lolou la leen nuyo yeen fans yi kon ñen euh, yi seen batay seen émission bi nga xamante ne moo di découverte Babs bëggoon nañu xam Babs élève la wala Babs mom lan lay liggéey. waa si Babs wan élève la kay en classe de troisième. Babs classe troisième nga nekk ak musique bi nii. waa si moom laa koy dundee nii moom ak hip hop bi yëpp. mais loolu dina métti ci yow wala da ngay. cours yi du am cours yoo xamante ne des fois nga daw ko dem ci musique beeg yooyu noonu. non daw ma benn cours mais day métti métti na moom trop sax mais tax ma daw benn cours quoi. yaa ngi koy gérer cours yeeg bi parents yi tamit. waa si yëpp maa ngi koy gérer kay parents yi awma benn kii si ñoom ñoom moom ñu ngi bi normal. ah nañ la waa si. Hmm. est-ce que mën xam Babs la commencé dugg ci li nga xam ne moom moo di rap. waaw Babs 2014 la commencé rap. 2014 waaw ah mais loolu yow bab sa ter nga dugg ci rap bi de waaw single nga génne man 8 single laa génne 8 single waaw single bi nga xamante ni nga ko nu tudd boobu bab sa si ah, yow daa yaay pëndal kër ma wa daa yaay seen ah, rappeur boo xamante VIP wu Kër Maba. waaw non pas Kër Maba sax mais man maay pëndal Saalum quoi. ah yaay yaay pëndal Saalum. waaw si ah loolu ra loolu am na solo nee na moom mooy pëndal Saalum yematul fi nga xamante ne moom moo di Kër ba lépp li wër Saalum lu nekk rek bab Babs One moom mu ngi ci léegi Babs sa premier single laa bëgg nga duggal ñu ci tuuti. mu dugg ca waaw asalaamaaleykum bëgg naa de ñëw naa si ñëw na si ñëw na Azu Baba egsi na sama yoon de tekki na ñu doon laajte Babs One xam nañ maay number one mën la kin ci game bi bokkuma ñii di jëm fii tàccu leen ma bëggal leen fii pare ànd feete bés bi dooga si booyu tooy xale yi tooyo tooy ku doon laajte si ñëw na wax ji jeex na ndànk da ngeen a bëri gàkk-gàkk noonu daal nga ko tuddee Babs Pëndal waaw Babs Pëndal am na solo bu baax a baax euh, Babs bëggoon nañoo xam nag euh, sa musique yan jafe-jafe daal nga xam ne yow yaa ngi koy dund ci biir musique bi moyens yi wala am na artistes yoo xamante ne ñu ngi lay jàppale yooyu daal. waa musique boobu awma si benn jafe-jafe. parce que lépp li ma bëgg moom gars yi mu ciy taxaw muy artistes yu ma dëkk ak yëpp awma ak benn problème lépp li bëgg dañ ciy ànd waaw. am na yeneen artistes yu à part yow. si am na ay artistes kay am na ay crew yu bëri sax. ban studio ngay. faral di enregistrer say son. man nag deux studio laa nekk waa benn bi samul nekk Zigbeus mooy nekk Kaolack benn bi muy ñoroo mooy Baaba. ah studio Baaba. waa si. waaw effectivement comme studio Baaba moom ñooro la nekk te ku wax studio Baaba wax ki nga xamante ni moom moo di Malabar famille ñu koy nuyu de passage est-ce que sa relation ak Malabar ñu bëggoon a xam est-ce que seq ngeen relation daal. waa Malabar maa moom meluñu nag. man baaba laa gën a minatee que euh, Malabar mm-hmm. waaw. mais est-ce que tamit yow yaa ngi jug di dugg ci yeneen artistes yi di demlanteeg ñoom pour ñu xam Babs wan tamit bu toogee benn ruqam rek di xaar artiste fekk fi tamit day metti comme yow jeune nga est-ce que yaa ngi di dem ci yeneen artistes yi tamit. waaw si loolu am na kay maa ngi déplacé wu di gisante ak artistes yu bëri sax di waxtaan ak ñoom ci lu bëri. Euh, ñu mel ni ban artiste. comme Mojo Kaolack. Mm-hmm. waaw Big Mo tamit KMD foofu ak waa Old Boys Crew. Mhm. même ko waa Black People tamit maa ngi déggante ñoom. ñoom ñëpp Kaolack lañ nekk. waaw ñun ñëpp si région bi lañ nekk foofu noonu. mais Babs yow da ngaa a sedd nag. rapport du sedd tamit rapport daa war a yëngal mu xaw a tàng tuuti. non sedd ma sax xam nga rek affaire bi moo ko laaj quoi. affaire ba. waaw xam nga boo ñu xoolee nii da ngay foog ni diw dafa yambaar mais te fekk lu ci biir. mu ngi quoi waaw tamit xam nga rapport moom da a mel benn kii bi boo rombee ñëpp xam mais ni nga seddee nii yow est que tamit. ma yenn yenn sedd yoo xamante ne rapport moom loolu de. waaw si loolu tamit day am tamit rapport moom moomul sedd loolu am na. Ah. waaw si. waaw waneel sa bopp na yëngaleel ñu xam ne kat kat Babs moom moom kii mooy Babs wan fan sii gën a kontaan ci yow. waaw loolu moom amul benn problème bu dee yëngal la ngeen bëgg damay yëngal daal di pëndal. da ngay yëngal daal di pëndal. waa si ah loolu am na solo bu baax léegi kon yëngaleel ñu mu pëndal ndax affaire bi gën a mën a neex. waaw. guddeeg bëccëg maa ngi job def ambiance rek time is money delloo njukkal ñi may frek dama jàng li may def sama yoon a assuré bu may dugg si hip hop fekk na yoon i saturé mbooloo mu ne Babs One mënuma leen calculer Babs One il est en ndex ne mu dëkkee circulé liggéey rek taluma coow dégg ñu may sànni xeex daal di aju ñu may jiw maa ngi dëkkee de fierté doomu sénégalais fépp la ma anoore noonu dëkkee yàq der man yàlla buruma décoré. Babs ba sànq loo wax sax noonu di ma sànni xeer. oui kon milieu bi am na dañ lay sànni xeer di la crash wala affaire bi dafa métti daal. non benn rapport classe ma mais xam nga rek waxin la ko hmm. xam nga nit moom mënta ñàkk moom. mais dama wax pour gars yi ñoo xamante ni mooy loolu ñu bàyyi xel. ñu ngi lay sóoraale pour gars yi sóoraale xam ne am na benn Babs One buy ñëw ci ginnaaw. non amul benn am na ñu xam ne Babs One mu ngi ñëw ndax Babs Babs One kenn la boo déggee Babs One rek. kenn ko kenn la fi ko quoi. <laughs> non Babs nag mooy loolu Babs moom dawul coom nee na moom day pëndal. waaw si loolu am na tamit. yaa ngi pëndal bu baax. waaw maa ngi pëndal kay bu euh, baax a baax. ba nga commencé 2014 ba léegi est-ce que yaa ngi organisé ay concert wa 2014 ba léegi xam nga bu ma commencé 2014 2019 laa commencé gagner son. Ah, ci la huit son yëpp daw ci kii bi diggante bi. 2019 ba 2020 bi. waaw nga génnee single. wa si. mais Babs loolu liggéey la de. waaw liggéey la kay. un an parce que un an nga génnee huit single. wa si moo tax man la goute beut ak ngi job mais ba si yow kon jangato non si may ngi parce que may batay ni may dem may ngi passé ci classe di dem. ya est ce que newu gars dang leni ki parce que fans nga rek ñu lay pour nga jàll non ci classe tam non si na bo concentré wu di liggéey guddeeg bëccëg kon yow ba si jangato non may jang parce que man na wax ne man rabbi luma ci ma ciy kii dugg ni parce que ay weekend su ma weekend ni dem xol sama texte wala ma am programme mu leer ma ne. damaa war a dóor sama ma ne xaaral ma fexe naxanteeg affaire bu quoi. su ma amee benn kii rek dugg waa si may bind sama bopp waaw. Eh, Babs yow kon huit single yooyu moom daa nekk yoo xamante ni moom single yu oyof la single yoo xam ne moom daaneelul gars yi parce que huit single ci si single yaa ngi daaneel gars yi kay. Ah, mais man man daal man Babs wan daal moom ni muy wax nii xam naa ne si dafa nekk artiste boo xam ni ngi doog a door. bëgg atire attirer gaay rek di wax naan ay amna wir single amna li amna li mais tamit. non du lolu sax. Mm. waaw parce que man moom xam nañ bop soom bu mu jugee du tay ñëpp xam nañ lolu mm-hmm. waaw salum ak liko wër nak salum ak liko wër. waaw lolu amna solo bu baax a euh, Babs bëggoon euh, ñu dugg ci li nga xamanteni modi di euh, sa staff sa ménagère. oui Kër ma bala nek wala ñor parce que sang ba tey maa ngi léegi wax rek kaw la ngay Babs mom leppam kaw Kaolack la wala. waaw non du Kaolack sax mais xam nga rek ci région bi la quoi. Hmm. waaw si mais sama ménagère si dëkk foofu la nekk. dëkk bi la nekk. waa mais yow daa mel ne rapport ñoo rek ñoom benn uh, kii de. non amoo ak benn problème waaw samay gaañ rek ñoo fi nekk samay. xar est-ce que seq ngeen ànd ak ñoom ñi nga xamante ne say grand lañ ñoo la jiitu ci. milieu bi. waaw parce que yaa ngi prévoir dem ci ñoom ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom pour ñu mën laa jàppale tamit xam tamit ne benn Babs Wane mu ngi fi mu ngi waaye ñëw ñoom tamit ñu mën la jàmm ndax nee nañ ku la jiitu ci néeg bu la na moo la mën a wax fi ngay toog. waaw loolu am na mais man moom rapport boo xamante ni ñoo jiitu si affaire bi yëpp ñu ngi si jiitu ñëpp. Mhm. ñëpp laa bokk yemal maa ngi ñun ñëpp laa bokk ñu nekk ñu ñëpp a nekk benn quoi. mais Babsa nag dëgg nga fi loolu mënut a nekk. Ah. ah mais ñoom ñoo la ëpp ñoo la ëpp niveau ñoo ñoo la gën a xam ne fi nekk tamit. non instant bi toll nii moom. Hmm. waxuma la Saalum de mais Sénégal. Ah. bi ma tegaloon rapport yi magi sax ma wan leen ne ma du mag ñoom. <laughs> waaye yow Babsa mi neexul mais Babs yow dëgër nga fit de. non dëgër fit sax. ah bien sûr parce que yow tey yaa ngi doog a door yow amagoo sax album. waaw si ngay comparé sa bopp yow ak yeneen rappeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, Sénégal gi yëpp tamit. waaw loolu mën naa am xam nga rapport yu am album am na tey jii nii rappeurs yoo xam ne am nañu fi album mais rabuñu fi dara lu nit dégg. Hmm. parce que tey jii nii boo bëggee rab dëgg-dëgg ñëwal Saalum gis nga rab town xuloo ak xeex kese la. Hmm. dëgg Saalum la fekk baax quoi. Ah, léegi daal yow da nga bëgg wax ne rab dëgg Saalum la fekk baax mais tey ku bëgg dégg vrai rab da nga ñëw ci Babsuwar. waa si da nga ñëw si Babsuwar ak ñu mu nekk ak. ah ñu mu nekk ak ña. mooy waa KMD hip hop mi ngi KMD sax laay wax. yow Babsu nag Babsu mu ngi nee na képp ku bëgg dégg li nga xamante ne moom moo di pur et dur rab da ngay ñëw ci moom ak waa groupe am loolu moom yéen laa koy bàyyi yéen waa découverte xamante bu ngeen ñëwee rek. ngeen tontu ma ki nga xamante ni moom moo di Babs Wane bind mu nekk loo xam ne histoire la boo xam ne boo dund la wala nga am mbokk bu ko dund est-ce que mën nga jànkonteel genre yooyu noonu. non mosuma génn genre son yooyu nag. Hmm. mais génne naa son boo xamante daal comme que comme genre histoire la quoi mais yaa ma yaa gën a xam. mais ban histoire histoire d'amour histoire la nag lan. non histoire d'amour moom yooyu yàlla def mag yooyu moom waxuma ci dara. duggagul ci amour bi daal. waaw man mais ban histoire nga bind tamit Babs day dugg ci sujet bi bàyyi di cof rek di génnaat. waaw xam nga rek mën naa xam du histoire mais xam nga rek loo xam dafa nekk loo xamante message la boo xamante tamit nit ñi dañ ko mën a dégg quoi. message bi laa bëgg nga jàllale loxo pour say fan si ñoom tamit ñu dégg message bi. nangu li ma doon yàlla buru ko def ci man daal di leeral sama yoon coow li bëri sama côté yàq der bi wax ju boor fu tooy nga taal di dal nettali bi yaa ko taal kàddu bala fexe mu dal ci dëgg maa ngi ziar ñi ma bëgg noonu ma gis ma daal di sëgg ma rab laa yàgg bëgg kon foog ma jox ma gëdd nangu li ma doon daal di leeral sama yoon. loolu daal mooy message bi euh, Babs dama mel ni daa am lu ma jàngat si sa say single yi nga xamante ni moom nga fi jot a génne presque yëpp même chose samay noon nañ ma bàyyi xel Babs mu ngi ñëw Babs daal daa mel ni moom ci loolu rek la campé wil singalam yëpp. non du ci loolu sax mais xam nga rek ku nekk ak sa style quoi. Mhm. ku nekk ak style ni ngay rabee loolu rek la. mais yow rab rek da mbalaax. wala da ngay concentré ci mais parfois ma génne ay son trap trap mbalax yooyu noonu. Hmm, yaa ngi mbalax bu mu neex. waaw trap mbalax ma xam doo parfois. léegi Babs moom kañ lay dem concert. concert moom kañ la koy demaat la wax sax. ah yaa dem concert. waaw concert nga njëkk a dem. njëkk a dem. Hmm. boobu Kër Maba Jaxu la woon Fasco sax la woon. Fasco mooy sama premier son bu may génnee. juste xawmon sax damay dem concert sama copain bu ma and ak mo ñew o ma ne ma euh, diw tay am nañ programme ci dekk bi fi ni mhm. wa ma ñew tewé ko bobu nga jëk yeek tay ñu ne tay bab su wan moo mo wara yëngal mais à part boobu ban nga démat à part boobu dem na concert bi mo chamben chamben wa euh, ci région salum bi fi fi la nek ni région Kaolack wa si salum commune Kër ba Diakhou la ah. mais à part ça tey xam nga Nioro bëri na ay activités yu nga xamante ne rappeurs yi ñu ngi koy def. est-ce yow yaa ngi ñëw di assister ci loolu tamit di xool ci gaa yi. waa si parce que bokk naa benn saay fa fii sax Nioro. Mm-hmm. waaw saay fa mag samay morom ñoo fa nekk presque sax. Eh, sa yeen morom. oui del wax del wax gars yi tamit di tudd seen tur ñoom tamit. waaw ay sama morom comme que mën naa ne duubooy laa duubooy laa fi xam ak El Tacho ñun daal laa fi gën a kii quoi. ñoom daal ñoo dong. waa si ñoom laa gën a xamee ci affaire bi. parce que ñun samay gaañal leen. mais Babs kan mooy idolam. kan la inspiré xool ko mu neex la ba tax yow Babs nga dugg ci rab bi daal. waaw ah, man ku ma xamante ni moo tax ma dugg ci rab bi. Mhm. ku yàlla def na lu Sénégalais mais malien la. malien waaw. muy mhm. kat. kooku mu ngi tudd Ibawan. Ibawan waaw. léegi ban son moo la marqué ba tax nga. ban son ay sénégalais dem ci malien yi noonu. non bambara nga. waa si man bambara laa. Hmm, noo sant. man jóob laa sant. Babs Babacar Diop. waa si. Ah, ok yow Diop nu mu neexee nga naan ay Babs wan di ñor di noonu di créer ay wan. non xam nga rek ku nekk ak ni ngay dundee la quoi. Babs wan moom mooy turu artiste mais Babacar Diop moom mooy moom noonu nga tudd. waa si. la yow demal ma ci son wu euh, nu nu mu tudd sax ngeen. Iba mhm. ah, benn son boo xamante ni moom moo la gën a marqué ci lu mu. benn son ma gën a marqué. waa xam naa refrain bi laay dóor rek. waaw ba tey mu neex rek. ok mama yeddowa ka ko ba kaña te la ne koro ni toxo bela jaa. <laughs> non Babsu yow amoo léegi yow Babsu loolu est xam nga lu muy làkk. waa si. Eh, léegi tekki ñu ko ñun ñi nga xamante ne dégguñu bambara. mu ne yaayam mu ngi koy ñaana lépp mu ngi nice. si ji penku ak ci xarfu ñëpp a ngi gis. foofu kon son boobu yaayam la ko wéyal daal. waaw yaayam la ko wéyal si. mais est-ce que tamit pare nga pour génnee sa yaay benn single. waaw si man sama son yi ñu ngi studio fii nii sax parce que waajur bi si la bokk parce que man dama woy yaay woy bàyyi. Hmm. waa yow daal bëggoo kenn mer. bëgguma kenn meex waaw ah, loolu amul solo ami internet ñu ngi leen di fàttali ba tey yéen seen émission découverte ñu ànd ci ak ki nga xamante ne moom moo di Babsu Wan Babsu Wan dëkk fii ba Kër Maba Jaxu Ba mais Babsu nag man lu ma gën a neex ci moom moom dafa dëgër fit parce que Babs moom dawul coow nee na mooy artiste bi nga xamante ne ku ku bëgg a déglu rab bu neex rab pur da ngay ñëw ci moom ndax moom daa jël lépp tee ko soxlawu dem jàngaani fenn lépp moo ko moom. waa si loolu am na lépp ni sama loxo. ah yow jàngaani woo amoo des dooy toog sax nga sàcc benn son artiste wala nga dem ci. koo xamante ne tey moo la fi jiw tamit Babs loolu mën na. waaw loolu mën naa am mais man su ne su ma naree jël son jàmbur. Hmm. surtout sénégalais yi fii de parce que mooy loolu xamuñ dara quoi. sa ii <laughs> Babs nee na xamuñ dara moom dong moo fi am lu neex moo fi xam lu neex te moo koy doon mais Babs loolu mënut a ñàkk des fois nga ñëw soxla benn inspiration wala tey nga ñëw ci koo xamante ni moo la fi jiitu mais Babs tamit nangu des fois baax nga dem suñu rap ay ñam danik ay. Malabar keneen a keneen noonu ay ñoom Mr Wan dem si ñoom tamit ñu lay jox ay cours wala loolu mu tane. waaw si loolu am na mais man su ma bëggee cours tey jii nii. Hmm. damay xoo sama mbokku malien yi quoi. Ah, yow ma sa xeer naan sénégalais xamuñ dara malien yi rek ñoo xam dara. waaw si parce que man moom malien laa quoi man dama féex ci li ma doon. Hmm. mais pour l'instant nii moom maa ngi Sénégal. mais yow mais yaa ngi Sénégal mais yow bañ nga ko ba si nag wit instant yi sax ñun si boppam ñu ma koy laaj quoi naan ma lan moo tax doo ñu génne son boo xamante ni suñu langue bi ngay wax mais loolu am benn problème incha allah day ñëw. parce que ñu ngi waajal benn projet temps yi nii sax. ban projet. dañoo bëgg dóor benn mixtape quoi. benn. Mixtape. Mixtape. oui lan mooy Mixtape man tamit Babs xam nga man xaw ma lan mooy ay kii da nga may waxal loo xamante ni man dama koy mën a comprendre. waaw Mixtape comme genre album rek la. Mm. mais wute nañ parce que album moo ko gën a riis. ah moo ko gën a waaw. ok Babs man Babs man Babs moom mun naa ne tey dañ am invité boo xamante ni exceptionnel moom nee na sénégalais yi xamuñu dara du samay wax nag kàddu Babs la ku ko soxla rek waxal ak moom képp ku ko bëgg tontu nag fii lay leeree. fii ci émission bi nga xamantene mom modi découverte ku fi ñew mu leer Babs duggal ñu ci projet yi nag ñu xam Babs mom ins bi 2021 bi ñu nekk Babs lan la ci programme waaw 2021 bi mom mën naa ne programme wu ma dara parce que li ma programme woon du mën a nekk parce que foog ñu pousse ko ba 2022 suñu fi yàlla bàyyee kay. 2022 oui kon bii moom année blanche ngay def. non du année blanche mais dina am ay single yu rek. mais la moo tax nga koy pousse tamit Babs. parce que avec euh, yaa ma gën a xam. non man gënuma laa xam ne man xaw ma dara affaire avec yaa ma gën a xam man xaw ma de danga may wax ndax gars yi dañoo soxla xam Babs One lan la programme ndax ñoom tamit ñu mën a ñëw. waaw xam nga ni école bi dangay comprendre école bi mooy loolu. Ah, parce que tey jii nii bu ma jëlee lu bëri tey jii def ko ci hip hop bi. far hmm. force ñaari benn mooy dem ba benn bi. non benn mooy dem sax. waaw si loolu moo tax mu ba def ndànk-ndànk rek amul yaakamti. Hmm, di def ndànk-ndànk boole ko kuuri ngay def. a examen yi passé yooyu noonu. non du ma ko bàyyi sax mais dinaa ko dinaa koy bàyyi xel parfois nii. ah di nëbalaale ay yenn yi ci suuf daal. waaw di toggaale rek. di toggaale muy ñor. waaw. <laughs> loolu am na solo kon mbokk yi lii dañ leen indiloon seen émission découverte ñu bàyyi Babs One rek moom tamit mu def mot de la fin bu paree may ñu benn single boo xamante ni benn son bu dal boo xam ne moom lay tëjee. Mhm. waaw xam naa ne di ko may sama gaay rek. la famille Wangi Crew waaw di ko may sama yeneen rapport yi quoi ñoom Big No ñoom King No ñoom Alex Dragon Ballon d'Or waa waa Mali di leen ko may tamit ak Mbës Boy di ko may Zifra mhm. sama copain sama doomu ndey du ma fàtte mukk Mojo waaw parce que gis naa nu may taxaw kooku moom pour ñëpp meloon ni moom rek affaire de gën a nice quoi mhm. waaw ak ñoom Ferex Elzo ñoom Réel MC leen ko jox bu baax ak Omzo bi Campro xam naa ne dañuy mujjee dem si freestyle rek parce que mooy loolu quoi. soo nekk seen nag na tàng nag parce que Babs yow yow yow nee nga yow yaa mën mais boobu ba tey tamit Babs yëngaloo da sedd boobu te rapport wa sedd nag. non sedd ma rek comme li mu la wax rek. Mm. ñun boo ñu xoolee nii da ngay fonne mooy loolu mais bu ñu ba ci biir da ngay xam ñii ñooy ñëw. yaru ba gars yi ñëw dugg après. waaw leen waaw si. xam naa dinaa leen jël may ñaari kii dagg rek ñaari freestyle. am problème oui. son excellence Babs One Babs Nigga is one 2021 Babs moo ko moom su téemaay du mën ak ñoom Babs ñun di seen ma xoom sooy xool ci moom lu bon di yàgg a gis lu bon. mais Bab président lañ koy waaw loolu mën naa am mais yi. yow seen président mais mën naa nekk maay seen yàlla sax mun naa wax loolu. yaay yàlla Babs nee na. waaw moom mooy yàllaay rappeurs yi. Mhm. waaw loolu Babs moo ko wax léegi doo leen ci beneen son bi. benn son yaa juróom ñeenti weex doon si naaj ak ci keex tuma taaci di la way ndax da nga nekk jararoy di jël bi la way di ko jagleel bépp yaay maama jël ma jaral daani doole du ma mës a toog di xoole maama bég mu nekk mbégte gardez vos sentiments pour nos mamans plein de bonheur <laughs> tey kontaan nañ bu baax a baax ñu ngi ci àndaloon ak ki nga xamante ni moom moo di Babs Wane jugee ko fii ba Kër Maba cette émission bi nga xamante mom modi découverte àndoon ci sa Cheikh Ba ak euh, ku nekkon ci cadre bi di sister di xaar di len dox dig dajé ba ëllëg incha